li waa ji ne en fait li expliqué Macky Sall a un problème avec son passé je crois il un problème lui avec son passé et il essaie de prendre une revanche sur la société moo tax respecté wul kenn ku dul Macky ci boppam keneen ku dul Macky Sall jàpp na ni doo nit soit nga ànd ak moom danga koy ndunguru wala mu jaar ak yow fu ñëpp xam wala nga ne yow d'accordu maak moom ci ni mu yoree réew mi mu ne faw ma tëj ko kaso